ausubillahi mina seytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu fu waay mën a nekk ñoo ngi lay siyaar di lay ñaanal jàmm gudd fan wér-gu-yaram xéewal gu yaatu defur àdduna ak gi ginnaaw bi ñu sant yàlla nag julli ci bi salallaahu alayhi wa sallam fu mën a nekk rek ñoo la koy ñaanal di wax ne Darou Salam Chifaou ñuy laaj ba xam danañ seet Darou Salam Chifaou dana seet dana seet wax la sa soxla wala wax la sa sarax foo mën a nekk nag boo ko wooyee mu seetal la wax la sa sarax nga dem defi ko yaa xam ak noo ko mën a defi ak foo ko mën a defi ji nga dem defi ko fa bu dee suñ borom mën naa tàggante say mbir wala lañ ciy jub nag liñ ci jub nag mooy bëgg dimbali doomu aadama yëpp ndax jafe yi bari na lool lu ci ndax seet gi mun la seetam duñ la wax yu ñaanal duñ la wax dara ñun ñaanuñu sax lu ci waaye lañ la seetal daal ne nangam mooy sarax génneel nangam ak nangam wala defal nangam ak nangam boo ko defee suñ mbir yooyu kale mën naa deñ ci kàttanu suñ borom te nag ñu ñëw ci jigéen joo xamante ni nii day ëmb ëmb yàqu jigéen ji am na ñuy jàmbat loolu fii jigéen joo xam day ëmb ëmb boo xam ne day yàqu ñu ngi ko fi jàmbat waaye daal day bind li may bëgg a wax ab aaya alxuraan la nag wallati ahsanat farjaha fa nafaxnaa fiha min ruuxina wa jacalnaaha wa amnaha ayatan lil aalamiina inna haasihi ummatukum ummatun waahida wa ana rabbukum waabuduni wattaqtaqaw amruhum baynahum kullun ilayna rajiun foofu nga yem nga bind ko takkal ko soxna si cib tànkam na nga koy takk boo mel ne xam ba tollu ci ay weer yooyu rek mën nga ko bind takkal ko ko ko bu ko dee bi daan bu fekkee da daan yàqu moom dootu yàqu mën na ci am nag ñeent fukki fan bu ko takkee bu ko neexee mu tekki ko nag wala mën na ko takki tamit ba am doom ba amee doom mu tekki ko def ko téere takk ko moom noonu la koy def wala ti ahsanat farjaha fa nafaxnaa fiha min ruuxina wa jacalnaaha wa amnaha aayatun lil aalamin inna haasa inna haasi ummatukum ummatun waahidatun wa ana rabbukum wa abuduni wa tattaqaw amruhum baynahum kullun ilayna rajiuna boo ko defee daal aaya boobu bu sab yàlla moom bu fekkee am bu daan yàq du yàqu ci kàttan suñu borom ak bii ci toppaat bu la neex tamit nga def bii walla bisu fii kafisim salasata miatin sinin wasdaadu tisata xulil laahu alam bi ma labisu lahu xaybu samawati wal ardi lii tamit bu la neexee nga def ko takkal ko ko moom soxna si am bu du yàqu tamit wala bisu fii kafihim salasata miatin sinina wasdaadu tisaan xulillaahu alamu bi ma labisu lahul xaybu samawati wal ardi boo ko dee boo ko takkalee incha allahu rabbi am bu ma duutul kon loolu lañ leen andiloon tey wa waa Daaru Salaam Chifaou ndax am na ñu fi laaj xamaa sax li waral doom bu góor waaye xamaa loolu suba lañ ci ñëw incha allah rabbi ku bëgg am doom bu góor ni ngay def bam ko ñu ngi leen siyaar baax jërëjëf ña waaye lii daal képp ko def jërëjëf ñoo xam ne daa yara dal xeetu yara dal dana ëmb bu am ñaari weer wala mu ëmb bu am ëmb bi am ñetti weer mu yàqu moo xam rab ba ko yàq moo xam binnee ko yàq moo xam lu ma leen bu ko takkalee lii daal ñu ngi koy takkal nag ci lupp bi la koy takk nag moom téere bi bu koy bu mu takk nag bu mu am sobe bu muy daal sobe bu ko fa takkee daal lu man ñeent fukki fan rek mën na koo tekki ndax aar na ëmb bi bu fekkee bi bi ma njëkk wax wala ci asan farja ji ñeent fukki fan la koy takk bu ko takkee rek aar na ëmb kon ñoo ngi lay ñaanal jàmm gudd fan wér xéewal yaa defar àddina ak alaaxira ausubillahi mina seytaani rajimi bismillahi rahmaani rahimi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu fu waay mën a nekk ñoo ngi lay saar lay ñaanal jàmm gudd fan wér-gu-yaram xéewal gu yaatu defur àdduna ak àllaaxira ginnaaw bi nu sant yàlla nag julli ci yonente bi salallaahu alayhi wa sallam fu mën a nekk rek ñoo la koy ñaanal di wax ne Darou Salam Chifaou ñuy laaj ba xam danañ seet Darou Salam Chifaou dana seet